ci xibaar euh, élection fal njiitum réew yi war am ci euh, at mi ñu nekk di atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent euh, ñu ngi koy waajal bu baax a baax ñi nga xam ne nag bëgg nañu bokk daal dinañ déposer seen i dossier waaye nag ñu nga nekk ci wàllum parrainage bi ngir lim bañ leen laajoon ñu daal di koy matal ñenn ñi nag daal dinañuy matal ba valider li nga xam ni moom moo di seen i parrainage waaye ñeneen ñi nag mataluñu mataluñu lim moom lañ a laajoon a ñu ñëw ci ñi nga xam ñoom ñoo di ah, dawal moto trois roues ñoom nag ñu ngay wane seen bopp ba dimanche bi weesu daal nañuy sosaata ab association bu yees de ko ACTT di association des conducteurs de tricycle de Thiès ñoom ñoo ñee nag dañu bëgg ngir ñu gën leen a fonkal ah, seenub liggéey askan bay yeewoo ci commune bu Notto Diobass nekk ca village euh, bu euh, Ngol Faké ñoom ñooñee nag mer nañu ba futtu ndax projet bu ñu fa samp depuis atum ñaari junni ak fukk ak juróom benn te gisuñu ci seen bopp waaye lañ leen waxoon yëpp def ñu ci dara tax ñuy gën di wane seen bopp xibaaru bi réew mi xibaaru biti réew xibaaru tàggat yaram ñoo ndar képpe suñu xibaaru tay ne surtout ñu faram fàcceel leen salaamaaleykum mbokk yi safoo di seetaan prestige tv xibaar yi dañ koy door ak élection fal njiitum réew yi war a am eh, ci weeru février bii di ñëw atum ñaari junni ak ñaar fukk ak eh, ñeent eh, bi ñu nekk li ni mel nag ñu koy waaj bu baax tax na ba ñi nga xam ne duñu bëgg a bokk ñu laajoon leen benn lim ci wàllum parrainage ñenn ñi nag daal dinañuy matal ba valider li nga xam ne moom moo di parrainage bi maanaam ñoo ñooñee dinañu bokk ci élection yi ñeneen ñi nag matalaguñu laajoon ñu ngay dem ah, di uti lu ñu ko mottalee li ni mel nag ah, tax ba askanu Thiès daal di ci am kàddu di wane nag ñoom la ñu xalaat li nga xam ne moom moo di parrainage ba reportage Ibrahima Sarr Ousmane Diallo. ginnaaw bu benn weer dese ngir amal élection présidentielle yi eh, candidat yëpp eh, ñu ngay jubali ca conseil constitutionnel ngir mën a déposer seen parrainage ndax ñu mën a bokk ci yooyu les élections ci atub 2024 te fii ci Thiès ñenn ci askan wi ñaawlu nañ gàntal dossier njiitu Pastef ba woon di euh, Ousmane Sonko. parce que Sénégal kumba am ndey ak kumba amul ndey moo fi nekk dafa am ñoo xam ne boo àndul ak ñoom sa dara du mën a sotti boo àndeek ñoom nag lu la neex def loolu bi ñu ko nemmeekoo ci réew mi ba léegi dafa yàgg moo tax bu ñu defee sax tey ji dañoo dem ba bu ñu defee loo xam ne ci yoon la jaar sax nit ñi duñ leen mën a gëm parce que dañu yàgg ci ay affaire yu njuuj njaaj ak yooyu loolu moo tax njuuj mais man daal je que euh, li ñu ko bloqué nii du dëgg du yoon dañ ko war a bàyyi mu jàll comme ay moromam quoi. benn nit moo ko fi mën a teree dem mooy Macky moo ko fi jéem a sax teree dem laay wax mais mën a teree dem moom yàlla rek ko ko mën mais benn nit moo ko fiy jéem a galgal mooy Macky Sall loolu depuis 2023 la ba léegi du léegi dafa yàgg xam nga mais ñun li ñu gëm mooy Sénégal fii nii ci loxoy Ousmane Sonko lay mujj mu neex leen war a mu naqar leen parce que mooy suñu candidat bi ñu gëm ñun Sénégal. nekk seen ginnaaw moom mooy président de la république rek ndax lépp moom la bu ko neexoon coow li na fi bu yàgg kon fi coow li agsi ba heure bi lépp moom la rek li jig di njaag mooy njaag moom Macky Sall hmm. damay gis ni man moom chaque jour moom Macky Sall mooy moo téye Sonko lu Sonko bëgg lu ne moo koy xañ waaw te waru koo mën na moo na de euh, parrainage yooye am na solo ndax day tax ñu segg euh, ñi nga xam ni euh, ñooy laaj réew mi jaarale leen ci ay parenage ñenn di am jeexi jaax ci nu ñuy doxalee li nga xamante ni moo di parrainage yi. affaire yi daal ni mu demee nii comme parenage la ñu wax coow li moom bëri na trop quoi parce que bu ñu nee parrainage bu fekk man dama yaakaar ne bu lépp jaaroon yoon rek. normalement coow du war a am quoi ku ñu ku ñu jël di nga xam ni jël nañ la ku ñu dax nga xam ni dàq nañ la mais bu fekkee dafa am ay contestation rek c'est parce que ñoom si seen ci seen euh, euh, euh, planning bi nga xam ne bi ñoom ñoo ñi nga xam ne ñoom ñoo yore parrainage bi te niñ ko doxalee daal man sama sama gis-gis leerul quoi parce que yàgg naa dégg ñu bëri di wax naan parrainage bi ni mu demee warul demee noonu leerul dugg na fii génn na fii te man defe naa ni lu toll ni euh, élection présidentielle buñ ko waree def lépp lu ci mën a aju rek dafa war a leer nañ ku nekk xam nga xam fi nga féete quoi mais man daal defe naa ne daal même ñi nga xam ne ñii sax ñoom ñoo dem ci parrainage bi ñooñu xamuñu fu ñu féete quoi. ñu fàttali leen ne euh, conseil constitutionnel ay bés a ngi nii euh, mu ngay saytu euh, dossier candidat yi ñenn ci ñoom jot nañu matal am ñoo xam ni bokkatuñu ci course bi ña ca des di dundee yaakaar ngir mën a bokk ginnaaw bu ñu amee lim bu leen di laaj ngir bokk ci élection yooyee ña nga xam ne ñoom ñooy dawal moto trois roues yi di maanaam euh, tricycle yi ñoom ñoo ñee nag ñu ngay wane seen bopp dimanche bi weesu euh, di dibeer ñoom nag euh, amaloon nañu ak as ak tegboon nañ ab association bu yees tuddee ko ACATT di association des conducteurs de tricycle de Thiès ñoom ñooñee nag ñu amaloon ab assemblée euh, général fii ci diwaanu Thiès ci école primaire bu kër euh, maam El Hadj nekk ci commune bu Thiès noor euh, ñoom ñooñee di yëngoo ci wàllum tricycle ñu ne nag dañu bëgg ñu gën leen a fonkal seen liggéey bi tax ñu daal di fixé li nga xam ni moom moo di ay priorité yu yees bu ñu sukkandikoo ca ki nga xam ni moom moo jiite boobee association di Pape Diabel Ndiaye moo yoroon seen kàddu ci micro Ousmane Diallo. association bi depuis deux mois ñu ngi ci woon di dox ay ay jéego yoo xam ne day mën a doxal association bi mm-hmm. ñu tijji woon fi benn groupe boo xam ne lu plus de cent et vingt personnes ñu ngi ci biir groupe bi tey jii nag ñu yëkk le 7 janvier ñu jàppoon benn date boo xam ne si nañ war a créer journée association bi mm-hmm. ñu defoon euh, suñu création association bi yàlla dogal tey ma doon président bi di ko rafetluwaat tamit di di di ñaanal gars yi ñu ñaanal ma yéen bi oyof tollu ci man ndax jiite yombul yàlla su la ko dogalee nga def ko da ngay ñaan ñi nga xam ne ñoo la ko defal rek ñu ñaanal la yàlla oyofal mbir mi. may rafetlu bu baax di am contentement bu baax ci li ma def ndax parce que am naa yéene liggéey ci liggéey boo xam ne nii bu mucc ayib lay doon. liggéey boobu lan lay doon. tey jii nii bu ñu sañoon tey jii ñun ñi nga xam ni ñoo ngi nekk ci biir association bi ñu booloo doon benn ba nga xam ni lépp lu ñuy def di ko di ko di ko xàccandoo ko ku ci mel ni ñu bëggoon nañ tey jii nga xam ne bépp administration la mu ngi ci biir Thiès ñu fexoon ba reconnaître ak yow lépp loo xam ne rek jumtukaayu liggéey la ñu jéem a fexe ba toog waxtaan ak yow lépp loo xam ne rek dinañu jëmale kalam ñu toog waxtaan ci. waaw koy ji xam nga ku ci mel ni fii social lu mel ni social man su ma sañoon dañ ciy dox bu baax a baax ñuy jàppalante ndax ay ndaw bu ñuy ànd di liggéey ñoo def leen lu dul jàppalante ndax réew mi moo toll foofu amul kenn doom benn doomu aadama boo xam ne di nga dem te demoo ak sociale wala ñu lay jàppale kon bu war su ko defee noonu lépp képp fépp administration nekk ci Thiès ñun dinañ dem toog jël suñuy projet tegal la ko wax ne ñun lii nañu bëgg ku ñu ci jàppale bu neexee suñu borom ba nga xam ne ku nekk ci biir association bi di gis sa bopp ci mbir bi ci bépp fànn bëgg nañ tey jii sax képp ku fa xam ne ñun da ngay ngénte ñun ñoo la koy defal muy nakar di bànneex lépp loo xam ne nii rek def nga ko ñu ñun ñun si suñu jëm bopp ñuy génne suñuy propre moyen defal la ko ba doo ci am benn métit bu la ciy dal ñu daal dem ca ñoto Jobaas saskan bay yeewoo ca village bu Ndiol Fagge euh, ñoom nag meex nañu ba futu ci projet lion agricole ba ñu euh, samp ci seen biir dëkk boobee depuis atum ñaari junni ak fukk ak juróom benn euh, ci biir dëkk ba ñoom ñooñee nag ñu ngi xam leen ni projet boobee ñuy wëy di ko amal ca biir dëkk ba di wàllum mbay mi gisuñu ci benn yoon seen bopp te it dafa gën a yokk seen i ay jafe-jafe loolee nag moo waral ba ñu wane seen nakar ki nga xam ne moom moo di euh, chef de euh, village bi daal dina euh, àddu ci li mel ñu ni nag lañ leen diggoon yëpp gisuñu ci dara tey it lañ leen a gën a yokkal seen i ay jafe-jafe chef de village bu ngool Fakke moom moom moomee nag mu ngi doon àddu ci micro suñu naataango yu Jobaas Info. la ñu waxoon ñoom biñ koy ñaan ñun ñëpp la woon ñoo ko ñaanoon suuf si dërëm lañ ci feeyoon léegi ci kaw loolu nag. dañu amoon yaakaar moo taxoon ñu joxe woon suñu kàddu mais yaakaar boobu ñu amoon yaakaar boobu dañ ko dafa mel ni yaakaar boobu daal li ñu waxoon lépp ak ki ñu waxoon moom dafa tas suñu yaakaar. dañ leen jëlee si dafa tas suñu population bi amul lu ñu mën a teg loxo ne lii la seen suuf si defal muy ñuy moom suuf si. muy population bi muy jigéen ñi ko ñaanoon pour ñu liggéey fi ñoom bañ nañu woo dematuñu liggéeyatuñu fi kenn liggéeyatuñu léegi nag comme que dañ ko ñaanoon pour ñun ñun mën si liggéey ñu mën a gën indi koom-koom xam nga li pour dëkk bi mën a dox léegi loolu amatul nañu jox suñu suuf c'est ça protocole bi partenaire gagnant gagnant la woon xam nga li ma la partenaire gagnant gagnant gagnant gagnant nag dafa waroon nekk dañ dañu waroon am ci suuf si loo xam ne pàcc boo xam ne ñun ñoo koy béy moom mu ñu compagné eh, mu ñu compagné loolu noonu muy génn muy nekk loo xam ne personne impactée moom mooy nekk seen indemnité mais depuis loolu ba loolu loolu appliqué ko ko leneen li fi nekkaat ak protocole bi bi ñu génnee yu bëri yoo xam ne yu ñu waxoon dañu ne woon protocole amul tant que protocole mënul am tant que ñun tooguñu ak yéen ngeen toog population yi ñu jox leen seen kàddu mais les grandes surprises dañoo jekki gis protocole boo xam ne saa xamuñu protocole fu mu jógee kenn waxuñu kenn dégguñu protocole baa ngi nii non xam nga li ma la maa nekkoon porte parole ñoom femmes yi ñoo moomoon ñoo ñoo ñaanoon tool bi femme Ngolfañ ak Diass buñ ko moomoon ñaan nag dañoo tegoon ay condition conditions yu claires la ñu tegoon conditions yooyu ñu tegoon yëpp nag maire da ko boobu benn la ci respecté wu ci li ma mën a am lu ma leer li ma mën a wax moom mooy loolu population bi li ñu waxoon tas nañ seen yaakaar nee nañ nañ leen jox la seen moom bi mu ñëwee ñoom ñu ñëw ñuy négocier tubaab bi ne leen a leen ko jox ñoom fuñ ko yóbbu mu fuñ ko woo moom mu dem kon ñu ne ko nag comme que loolu na demee. des ba tey ca commune bu euh, Notto Diobass foofee nag euh, ka nga xam ne moom moo yor kàddu ndaw yi euh, ci ay kàddoom daal dina xamle ni kenn expliqué wu leen maanaam kenn xooluñu li nga xam ni moom moo di contrat yi nga xam ne moom lañ leen signaloon ndaxte condition yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee nekk na ay condition yu métti métti te lañ waxoon ni nag moom la ñuy def ni nag bu ñu ñëwee bépp jafe-jafe rek boo xam ni dëkk ba daal dina ko am danañu ko fàcc gannaaw buñ fa sampee li nga xam ne moom moo di euh, projet boobee li ni mel defuñu ci dara dañ ko wax rek daal di bàyyi te ñoom ci askan euh, te ñoom ci condition yu métti nañuy liggéeyee moom moomee nag mu ngi tudd Ibrahima Thiandoum moom mooy yoroon kàddu ñi nga xam ne ñoo di ndaw yi ñu teewlu ko ba tey suñu micro naataango yu Jobaas FM. askan wi nga xamante ne ñoo fi dëkk surtout impacté yi dinañ ci gis seen bopp malheureusement ba jamono bi ñuy toll nii di wax dara lañ ci gisul ñun nag li ñu métti. mooy protocole bii nga xamante ne moom lañ fi yore comme niñ ko waxee rek protocole bi dañ koo tëgg tëggin boo xamante ne population bi xamuñu fan lañ ko tëggee ak niñ ko tëggee. woowuñu leen ci woowuñu ñu ci. chef de village a ngi nii dégg nga sànq li mu wax mais am na ñaari signature yi fi nekk je crois que ki signé war na xam mbir mi nan la demee bu ngeen ko liiree di ngeen xam li fi nekk. monsieur le maire moom moo ko signé moom Alioune Sarr ak patron bi nga xamante ne moom moom la ñu bàyyi daa bon sa boyar ñaar si yooyu la ñoo fi nekk bu nekk nag lu ñu métti te yaakaaruñ ci woon amuñ ci benn waxtaan buñ ci fekkee man man mii di wax ak yéen population bi yaakaar naa ne amul kenn ku fekkee waxtaan ba nga xamante ne moo nas protocole bi chef de village li mu la wax noonu tase nañu ak yenn autorités yi ku gis protocole bi def la naan li jaarul yoon warul demee nii warul demee nii kon donc protocole amul boo waxee ñu ne la protocole amul bu ngeen liiree protocole bi dañ ciy def ay réalisation xamante ne bañ koy tàmbali xamuñu nan la ñu waxtaane ba ñoom ñu tàmbali liggéey yooyu ñun nag li ñu intéressé mooy askan bi nga xamante ne ñoom ñoo moom seen suuf ñoom ñu gisi seen bopp parce que partenariat gagnant gagnant ba ñu waxoon man mi fekkee naa réunion yu bëri ci loolu lañu ñu waxoon mais à notre grande surprise mooy ne ba ñuy nas li fekkee wuñu xamuñu nañ lañ ko nasee ñun protocole bi dañoo bëggoon ñu réviser ko ñëpp toog waxtaane ko loolu bu mënul nekk askan wi nee nañu nañ leen delloo seen suuf mu keneen ko nga xamante ni dinañ mën a liggéey ak wax ji gudd mu gàtt loolu mooy seen objectif fu mu nekk nii protocole bi nañ ko réviser correctement wala ñu delloo leen seeni suuf xam naa ne après dinañ gën a concerté waat mais am naa ñu ngi leen di lancer appel boobu noonu hmm. déglu leen ci ak quelque temps ñu xool ñu daal di jox ñi eh, nga xam ne moom moo di wàllum tàggat yaram rubrique eh, bu ñu eh, dippee coupe du monde des nations Côte d'Ivoire atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent en route vers la CAN ñu daal di ci ànd ak El Hadji Ndaw ci fa fàcce yi. ci yoonu Coupe d'Afrique. tey jii nag euh, ñu def taxaw seetlu ci poule bi nga xam ne Sénégal moo fa nekk di ci ànd ak Cameroun Guinée ak Gambie Sénégal ñu dippee leen gaynde teraanga yi euh, ñoom nag géjoon nañu ci Coupe d'Afrique bu yàgg ña ngi cay dellu si ci atum 1986 ci génération dem ci yàlla Jules François Bocandé Omar Gueye Sène Roger Mendy Cheikh Seck Thierno Yom ci lim rek bu gàtt atum 1986 boobu euh, Sénégal dafay dellu siwaat Coupe d'Afrique en 1990 fële ci Algérie dafay euh, perte nag euh, demi-finale ba dellu siwaat atum 1992 ci Coupe d'Afrique boo xam ne mu ngi ko organisé fii ci Sénégal da koy ñàkk ci deuxième tour bi ñu ngi fàttaliku Cameroun moo ko éliminé woon ca quart de finale ya Sénégal nag dafay ñëw pour la première fois de son histoire ci atum 2002 ci final final boo xam ne da koy ñàkk ci kanamu euh, Cameroun gannaaw bi nga xamee ne ñoom dañoo témboo woon kenn dugalul woon dara ci sa camp moroom ñu dem ci prolongation yi ñëw ci jongante dàq dóor ci mbaal Cameroun daal di ko daan ci final boobu ñett penalti euh, ci ñaar Sénégal dafay dellu si waat en final ci atum 2019 jongante final boobu moom ak Algérie Algérie daan ko benn bal ci dara atum 2022 Sénégal pour la troisième fois ci histoire penalty ñaari yoon yoo xam ne daf koy ñëw final ñaari yoon yu tegaloo Sénégal daal di gagné pour la première fois de son histoire coupe CAN bi nga xam ne daf ko daan Égypte gannaaw bi ñu demee ci jongante dàq dóor ci mbaal ñeent penalty la dugal Égypte dugal ñaar ñaari équipe ya nag dañoo témboo woon kenn dugalul woon dara ci sa camp moroom fanweer ak ñeent édition bi nga xam ne ñu ngi koy amal ci Côte d'Ivoire Sénégal dafay dem pour défendre son titre ci poule boobu nag ma ngi cay ànd ak Cameroun ñu dëppee leen gaynde yi nga xam ne kenn mënu leen a jàtt Cameroun bokk ci ñi nga xam ne ñoo gën a taxaw ci Coupe d'Afrique moom Cameroun boobu mu ngi gagné pour la première fois de son histoire Coupe d'Afrique atum 1984 Nigéria la duma duma yu métti ñett bal ci dara Cameroun dafay pertaat final Coupe d'Afrique boobu atum 1986 Égypte moo ko gañe woon gannaaw bi ñu demee ci jongante dàq door ci mbaal Égypte dugal juróom moom mu dugal ñeent ñaari équipe ya nag dañoo temboo woon kenn dugalul woon dara ci sa camp moroom atum 1988 Cameroun dafay gagné pour la deuxième fois de son histoire finale bi nga xam ne mu ngi doxoon ci digganteem ak Niger Nigéria mu daan ko benn bal ci dara atum 2000 Cameroun gagné waat Coupe d'Afrique Nigéria boobu la duma waat gannaaw bu ñu demee ci jongante dàq dóor ci mbaal ñaari but la ku nekk dugaloon ci sa camp morom bañ demee ca jongante dàq dóor ci mbaal nag ca la Cameroun dugalee ñeent Nigéria dugal ñett wante Cameroun dafay dellu siwaat final atum 2002 di ci daan Sénégal gannaaw bi ñu demee ci jongante dàq dóor ci mbaal ñett penalti la dugal Sénégal dugal ñaar ñoom ñaari équipe yooyu nag dañoo témboo woon kenn dugalul woon dara ci sa camp moro Cameroun yemul foofu dafay dellu siwaat ci final atum 2008 final boobu da koy ñàkk ci digganteem ak Égypte wante na bokk ci ñi nga xam ne ñoo gën a taxaw ci footballu Afrique atum 2017 dafay dellu dellu siwaat ci final daal di ko gagné contre Égypte ñaar bal ci benn mu mel ni ci juróom ñaaru final jërëjëf El Hadj Fallou Ndao euh, jërë ngeen jëf euh, egsi nañu ci xibaaru euh, biir réew mi ñu ngi xam ne ni nag fii ci réewum Sénégal dafa am juróomi commando marine yoo xam ni commando marine nationale yoo xam ne nag boobu ba léegi gisuñu leen ñu daal leen di porté disparu xibaaru biir réew mi ak soxna Mame Birame Cissé Gueye xibaari biir réew mi ñu daal di koy tàmbalee la jëm ci cadre mission de défense ak it sécurité ki nga xamante ne ji ñu dénk wàll wàllum armée daal di nay inauguré facture yu gendarmerie fële ca zone sud ñeenti fan jàpp juróomi fan ci weeru janvier bii la ñu nekk atum 2024 benn par benn nag brigade de proximité yu tanaaf ak it ñagis daal di nañ koy inauguré ca kanami maire ya nga xamante ne ñoom ñoo fa teewoon infrastructure yooyee nag ñu ko financé nekkul ñenn lu dul waa Purement euh, ñoom ñoo daal di financé yooyu infrastructure dina permettre tamit ñu jouer rôle centrale jëm ci maillage sécuritaire ca territoire frontalière yooyu nga xamante ne dafay confronté wu lu jëm ci criminalité transfrontalière sàccum jur trafic de bois ak lu jëm ci béyum sinébar ñu daal di waxandi leneen Macky Sall daal di nay fësal ak ëpp xibaar jëm ci ubbiteem musée ba nga xamante ne dinañ ko déjee ki nga xamante ne mooy prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam loolee nag fas yéene na koo def juróomi fan ci weeru février février bi ñu jëm musée ba nag na ko daal di consacré ka nga xamante ne mooy yonent bu tedd bi lee loolee tamit dinañ ko daal di ubbi juróomi fan ci weeru février bi lee ñu jëm fële ca Dakar ginnaaw appui autorité saoudien yi nga xamante ne ñoom ñoo fas yéene gunge boobulee projet musée boobee nag doon na lu am solo ndax dina retracer dund ak it œuvre ki nga xamante ne mooy Mohamed p et salut sur lui ci ay suñu sukkandikoo ci ay kàddu ki nga xamante xamante mooy Macky Sall doon it njiitum réewu Sénégal ginnaawu occasion ba nga xamante ne amoon na foofu mu teewee woon cérémonie de clôture semaine ba nga xamante ne moom la ñu jagleewu loon patrimoine Cheikh Ahmadou Bamba fondateur mouridisme ñu daal di koy jeexalee ak nouvelle bi nga xamante ne xaw naa tooye xol lu toll ci cinq commando yu marine ñoom la ñu daal di porté disparu juróomi fan ci weeru janvier bi ñu nekk ginnaaw ginnaaw vingt heures ba mu jotee situation boobee nag loo ko waral mooy interception ba amoon ginnaaw ab patrouilleur foofee ca haute mer bu ñuy tudd bu ñuy woowee navire boo xamante ne dañ koo daal di suspecté lu jëm ci mbirum trafic stupéfiant ca large yu Dakar suñu sukkandikoo ci direction bu relation publique des armées ñu koy wax DIRPA ñoom ña nga xamante ne ñoo amaloon fuy yooyu nag ñoom nee nañ équipe d'intervention yu commando yooyee nga xamante ñoo yéegoon ca boobu boobule navire nag ñoom ñoo doon daal di ne vanne ya dañ ko ubbi woon te la waraloon ñu ubbi woon ko it dafa doon lu suspet ca ñoom euh, maanaam dañoo gisoon ne ñoom boobe loole ab action de sabotage la woon ba taxoon ñu daal di intervenir ngir ñu bañ boobu boobule navire daal di couler ngir effacer lépp luy preuve jëm ci loolee nga xamante ne ñu ngi koy suspecté ci la ñuy wax trafic illicite lii moo doon li gën a fës ci xibaar yi. biir réew mi jërëjëf jërëjëf euh, soxna maam Birame Cissé Gueye ci xibaaru euh, di toftal ànd ceeg soxna Ramatoulaye Cissé. benn responsable militaire bu mag a mag bu bokk ci Hezbollah pro iranien lañ daal di faat ci benn frappe israélienne boo xamante ne dafa doon visé wala sax boo xamante ne dafa daal di visé woon otoom ni ki altine gi foofee te sud bu Liban xibaar boobee nag ab responsable de sécurité libanais moo ko daal di xamle chef militaire boobee nag dafa doon joué benn rôle bu am am solo ci lu soxal direction wu opération militaire foofee ca sud ba moom nag daal dinañ ko faat par benn frappe israélienne foofee ca village bu Herbet Selm te nekk ci fukki kilomètre ci diggante frontière ak Israël ñaari journaliste yi doon liggéeyee ci chaîne boobee wala sax chaîne qatarienne boobee te ñu gën koo xam ci Al Jazeera lañ daal di faat niki dimanche bi foofee ca Rafah Touba te nekk benn ville gazouille bu jege loolu frontière u ba ginnaaw nag frappe boo xamante ne daal di woon nañ ko amal ci seen oto xibaar boobee nag seen employeur moo ko daal di xamle loolee nag daal di dolleeku ci lim bi nga xamante ne moom moo amoon wala sax ci lim bi nga xamante ne moom lañ lim ci professionnel yi nga xamante ne daal di nañ leen faat depuis bu guerre bi commencé ba léegi comité pour la protection des journalistes moo ko daal di xamle protocole xamante ne ñoo ngi ko signé woon ni ki benn fan ci weeru janvier ci diggante Somaliland ak waa Éthiopie moom nag dafa daal di accordé benn succès maritime foofee ca Addis Abeba waaye ca Mogadiscio juge président somalien boobee nag di Hassan Cheikh Mohamud moom nag mu ngi xam ne que ni loi boobe nag dafay gën a wane seen détermination ngir daal di gën a sàmm seen unité waaye tamit seen souveraineté ak tamit seen intégrité territoriale mu nga xam xamle itam que ni luwa boobee dafay daal di annuler protocole d'accord bi nga xamante ne moo dox ci diggante Addis Abeba waaye tamit Hargeisa te nga xamante ne ñoo ngi koy considérer ci luwa boo xamante ne jaarul yoon benn yoon mbokk yi tey lii leen leen jàppaloon ci seen i xibaaru bitim réew. jërëjëf ci xibaaru biti réew yaam am solo yooyee xibaaru tàggat yaram nañu ndar su suñu xibaaru marax um, Tëngéej FC daal dina récupéré waat li nga xam ne moom moo di fauteuil de leader am uh, donte ni sax dafa daal di nul ak Las Pikine xibaaru tàggat yaram ak soxna Adja Aram finale coupe du Sénégal handball jëmoon ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di góor ñi euh, DUC di Dakar Université Club doon ci jàmbaarloo ak association des forces armées ñu naan ko ASFA amaloon nañ ko nag fële ca Dakar Arena ki nga xam ne nag moom moo di DUC moo daal di gagné boobule trophée daal di doon ki nga xam ne moom moo di Isaac ca boobule trop fait ba tax na nag ñoom ñoo ñee di protéger wu sergent Moustapha Cissé nag laata match bi di commencé ñoom daal la defoon favori maanaam ñoom lañ yaakaaroon ñu daal di gagné boobulee xam ne ñoom ñoo di étudiants yi rek dañoo daal di bañ ba tax na match bi daal di nay serré lool ndaxte ba pàcc bu njëkk ba di tas dañoo daal di tembo ndam demul ndam dikkul 15 but fu nekk ci côté bu nekk waaye nag ba ñu dellu siwaatee ci li nga xam ne moom moo di ñaareelu pàcc match ba Duc daal di ne dugal lu tolloo ko fukk juróom ñaari but ba tax na moo daal di ki nga xam ni premier ASFA ca score final bu 31 pour ASFA Duc daal di am 33 ba tax na moo daal di gagné boobule trophée jëm ci jigéen ñi Jaaji Sarr daal di nay gagné li nga xam ne moom moo di trophée bu njëkk ba ba tax na ba ñuy dem ca mi-temps ya ndam demul ndam digul 14 ku nekk daal di duggal te ñaareelu pàcc match ba nag la di waa Jaaji Sarr daal di dëggal seen bopp ba tax na match ba daal di nay jeexee ca 26 pour ñoom vingt cinq pour waa jamono ba tax na ñoom daal dinañuy jël seen coupe du Sénégal bu njëkk jeexal xibaaru tàggat yaram wax ci li nga xam ne moom moo di Ligue 1 bi Tëngéej FC doon jàmmaarloo ak AS Pikine gannaaw nag ñu amee ab match nul la ndam demul ndam dikkul benn but daal di wul dugg ca boobule match Tëngéej FC daal dina yéegaat ca classement ba daal di nekk ca kaw ak 18 points ndaxte li tax mu nekk ca kaw sax moo di dafa ëppali but yu mu duggal ki nga xam ne moom moo di Dakar Sacré-Cœur nga xam ne moo jël ñaareelu place ca classement ba AS Pikine daal di ñëw daal di jël li nga xam ne moom moo di troisième place su bi mbokk yi loolu fi wàccoon ci xibaaru tàggat yaram jërëjëf soxna Jaram Seck ci xibaaru euh, tàggat yaram yu am solo yooyee mbokk yi lii rek nañ leen di doon ci ay xibaar man ngeen wéy di seetaan suñuy xibaar ci www.prestige.com ngeen di am jàmm ñu am jàmm suñu am jàmm jer ngeen jëf.